Bienvenue sur Salam Vision. mister Yanji la mister Ama la yéen ko gis noonu tey ñu ngi fi nga xamante ni moo di euh, tey li fi jot a xew fii bara boobu nag dama koy bàyyi moom mi nga xam ne tey ji moom laa fi invité fii mu wax ma fii mooy fan fii naka la ak tey événement bi naka la soxna si fi nekk nii fan la. ñu ngi Fass Mbao. Fass Mbao. dégg naa ñun dafa garaaw. Ah, ça dépend ci li ngeen yaakaar ci garaaw rek ça dépend ci seen définition wu garaaw. maa ngi jóge ba Guédiawaye. ah bon man mii ba Dakar laa jóge ah kon nag soxna maman la gën a jege. waaw yaa ma gën a jege tuuti. <laughs> voilà ok tey jii ah, ñu gis ne tey jii yéen a ngi fi waaj benn affaire bu garaaw euh, remise de cadeau la defe naa. teg si tamit ñu gis ni salle bi tey ji commencé na fees te affaire bi commencé gul tey ñu fekk fi benn artiste bu mag tey ñu naan ko Wally 2 tey ji programme bi tey ji naka ngeen ko tëralee. dafa fekk ni euh, comme ay jeunes lañ ñun ñëpp te ku nekk yaa ngi wut ci loo jàpp maam Cheikh ak jigéenam Anta ñoom ñaar ñu fête seen dix ans de carrière. et que comme que ay jigéen ay nit ñu am jom lañ xale yu am jom lañ wax dëgg fa yàlla jot na ñu remercier seeni i ñoom ñu ci jàpp boobu ba tey parce que yombul ngay def entrepreneuriat ci dëkk bu mel ni Sénégal mais ñoom ils ont tenu pendant dix ans ñu ne jot na nag ñu feete dix ans de carrière yooyu ñu laaj leen nan ngeen koy féetee ñu ne dañuy sargal dañuy bégal dañuy jox cadeau suñu ay clients mu nekk lu lu lu am importance wax dëgg fa yàlla parce que clients yi tamit ñoom ñoo ñu ñu ñu mën a am suñu liggéey comme il le faut. tey tey ñu gis tey yéen yéen a ngi liggéeyandoog seen i client di jël seen produit di ko jaay seen i client tey ngeen taxawaat ne tey da ngeen di sargal tey seen i client tey ji idée boobu noonu idée boobu tey naka ngeen def tey ji ba mu ñëw tey seen digg waaw xam nga loo gis rek affaire yi jàppalante la ak sottante xalaat ku ci nekk da ngay am sa idée bu rafet rek jox ko sa morom yéene ko ko ndax ñun ñëpp ñu ñuy fi ñëw ñëpp ku nekk li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa morom donc ñu toog waxtaan ils se sont dit pourquoi pas ñi nga xam ne ñooy suñu client di jóge fu nekk partout dans le Sénégal pourquoi pas ñu sagal leen defal leen benn soirée boo xam ne pour ñoom rek lañ leen invité Wally 2 mu bégal leen ñu jox leen ay cadeau ñu xam ne ñun tam yëg nañ leen parce que gis nañ ñu ñoom tam yëg nañ ñu loolu kese la waaw tey ñu gis ne Wally 2 mu nekk star bu mag ba tey Wally 2 foo ñu yaakaar ne Wally Seck bu mag bi la donte léegi daf na jaar-jaaram tey ji événement bi tey ji yéen yaakaar naa tey du ngeen ko may dara non non du yomb événement bi mënut a yomb ko fii moom boo ko deful doom ku neñ jox la sachet booy ñibbi non du ma ko ko baal doo ko du ma ko ko wax ji man maa koy dagg fii laa koy daggee man ak yéen ci biir dégg li wax nee na tey du ko may dara di leen wax tamit lu rafet nii du ci man ci maam Cheikh la moom moo a solal ba ma ñëwee donc di ko remercier bu baax di remercier aussi jigéenam di leen remercier aussi parce que mënoon ngeen bañ a ñëw vraiment merci kon ci kanam tuuti ñu toj waaye nag léegi mën naa la ko wax de comme que moo la solal damay ngeen fi ngeen di jaar ah. bam solal leen incha allah mooy def yu baax yi <laughs> may naa leen numéro jox leen numéro adresse a dama la ko may loolu après ngeen ko gis kon ci biir yéen a ko gis fii ñu ngi ci suuf wëree ci kaw ci biir salle bi nga xamante ne xam nga tey Wally Seck Wally 2 tey moom moo fi war a def tey ji def lu ala doome tey ànd seet doomu ndayam kii nag jigéenam la mu nekk ay jigéen yu gëm seen bopp jigéen yoo xamante ni macha allah tey mënoon nañoo jug tey dem defe jël lu leen neex defuñu ko dañoo gëm seen bopp xam ki ñu doon xam ñooy kan lu ci kanam rawati ba tey man ak yéen <laughs> Salam Vision Kiki TV tey dara du sedd mais am na sama yeneen mbokk caméraman yoo xamante ne fi mu nekk nii maa ngi leen di gis waaye fi nekk nii ñooñu dañoo garaaw. gis naa loolu. <laughs> bu jigéen bu kii nii gis naa xale bu jigéen boobu noonu tam xaw a kii nii waaw def sañ bu baax. mais ñooñu dañoo xaw a baax. non bandiwul dañoo mën seen liggéey. kon baax na yéen a ko gis yéen a mën seen liggéey kon ba ci kanam sama mbokk yi ko waxee ci suuf comme niñ leen ko waxee woon ci suuf xam nga ni événement bi demee instant nag ñu ci biir salle bi. tey fi nga xam ne tey Wally Do tey foofu la war a joué mais dafa am benn gaayan boo xamante ne gaayan bu doy waar gaayan boo xamante ne dinaa ko sa tur bi moom moo tax xam rek mënu ma wax lu rëy mais ginnaaw comme que Mohamed la tudd dama koy bàyyi moomu charge Mohamed yegsil Mohamed yegsil mu ngi kul foofu ah. Mohamed maa lay ziar. delloo ziar ba jàmm sant alhamdulilah. tey remise lu war lu waral tey ji bis bi. bis bu màgg la. bis bu màgg suñu nit. suñu doomu ndey. suñu seddoo. ki xam ne moom yàgg na si ñun. ñu séq ay teraanga muy maam Cheikh Niang mu service Al Maktoum ak euh, doomu ndeyam Anita Makeup bis bi moom seen dix ans de carrière la ñuy féete remise de cadeau bégal nit ñi te ñun ñoo ko waroon bégal moom moo ñuy bégal macha allah. tey jii ñu gis ne tey yéen yéen a ko waroon bégal te moom moom mu leen di bégal tey jii mu indi ko tey ci salle bu mag fii fi nga xamante moo di Diamaguène tey ñu gis ne tey jii euh, Wally 2 war ko jouer Wally 2 war ko jouer seen diggante ak Wally ah Walido macha allah ma Walido ak maam Cheikh moom macha allah fu mu dem da koy topp waaw ñoom ñaar moom macha allah mooy seen diggante moom ratax na ba waali moom fu maam Cheikh ne waaw rek mu ne waaw. waa loolu nga gis loolu laa gis. mais kon tey daal moom xam naa tey moom ñun moom ñun moom comme que ñun moom gars yi xam nga dañ leen na bett comme que bett nañ leen ndax olof ñaar leen loo bett mën la est que xam ne tey ñun duñ leen may dara. non macha allah ay ay ay waxuma ay jinne de mais ay nit lañ demee di gis lu garaaw. kon sama caméraman yaa ko dégg ma jëmm ji daf maa yëm nee naa ko nag tur bee gis si man kooku mooy Mouhamed kon baax na léegi dañ lay bàyyi rek après nga dem léegi li ci kanam moom ñu enchaîné ko ak wàllu dër. amul problème kon baax na merci beaucoup kon baax ci kanam tuuti bu affaire yi tase ma wan leen wàllu dër parce que bëggoon naa ko jël nag ci première image ko jël ci première image dama koy bàyyi ba affaire bi jeex tàkk ma xëcc ko ci wet bàyyi ba ñëpp dem ma ne ko toogal fii nga wax ma li nga xamante ni moom laa bëgg a dégg ndax askan bi war koo dégg jaa ngeen jëf kon ba hello yéen a ko gis nee naa la man jinne la fi gars yi di làqatu maa fay dugg ne ko faax xëcc ko mu ne kengi ki ngeen gis na kook mooy Wally Deux xam naa ne kenn dootu ko présenté ci mim réew ki jaaxal Sidi Diop ki jaaxal Wally Seck ki jaaxal keneen waaye li ma ci jaaxal mooy tur bi nga xam ne jël na ko dëppoo ko ki nga xam ne moo di doomu ndayam muy Wally Seck kon Wally Deux maa lay siyaar maa bu baax a baax a baax yaa ngi am jàmm maa ngi bu baax jaajëfati di la nuyu di la jox sa wàcc waaye tey ñu gis ne tey tey affaire dafa commencé à la daw me démarré gul mais salle ngi commencé fees walla 2 sa diggante ak Mame Cheikh. waaw Mame Cheikh euh, ak Anta ñoom ñaar samay nit lan Anta sama jigéen la Mame Cheikh sama doomu ndey la borom almaxtum ak Anita Anita Solon nekk sama yaay ji baa nekk sama xarit di wax na tey ñoom ñaar bu ñu xewlee damay ñëw seen bis nii la la mën a mel man a koy joué indi sama orchestre bu ambiance dëgg du neex moom fii dina mel ni jàmm. tey tey ñu gis ne tey Wally foo mos a joué mu fees fu Wally tëgg ñëpp wuyu si ko tey nga organisé wu di feneen tey moom Cheikh soxla nga ne ko fat foosu da ngay annulé say lépp parce que moom du la soxla ñeneen di la soxla nga bañ koo wuy si da ngay ñëw jàppante ak moom coloré sa diggante ak moom coloré bi lan la. coloré bi mooy maanaam dama ji teraanga ji ma ngor te man boo nekki boo ma yëgee rek tey it yaa ma moom man ku ma yëg yaa moom affaire du xaalis maanaam bala ngay wut xaalis wutal nit ñi maam Cheikh nekk ku baax. nekk ku ku am yitte ci nit mook Anta Ba borom borom borom euh, kenn borom ki anis anisa anisa anita ku baax borom sono soppi sëñ Fallou ñoom bu ñu xeel seen bis la la mën a mel su ma jëloon téeméeri programme dama koy bàyyi bàkk sëñ Ba parce que dama baax ñoo ma ko ji. da ngay góor waaw da damay góor waaw waaw. mais ma mais ma tudd acapella ji. <laughs> billaay wallaay kuy sabari ca ndaay wilaan sama doom ji ayo bébé béyo ama dañ ko dagg dañ ko dagg foofu gars yi ba ci këram tuuti nag moo xew nag dañu ànd ak moom ànd ak moom di dox di dem Thank you. PDG de service Al Maktoum et Anta de Anita Meyguem, 29 10 ans de carrière. 10 ce n'est pas un jour. 10 ce n'est pas deux jours. 10 ans, c'est 10 ans. Mesdames, et Messieurs, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons ici à Fasbao, dans notre fief. Merci d'avoir honoré de votre présence de cette soirée qui va sans plus tarder démarrer. Donc, euh, Mbaye Karim de la Sen TV bu fekkee ne député ok.

ne même chose yi arrêté on dit ak spiritisme maam Cheikh ñoo dañu def fukki at ci mbéy mi ak mbokk fukki at ñu solace fukki at ñu def la ci seen milieu fukki at ñu nekk ci ko leen bëgg nekk waaw parce que moom wax la ñu nekk ci waaw wax la ñu ko laaj bu baax a baax a baax xale yi ñu ko laaj bu baax a baax a baax suñu xale yi ñu ko si félicitation Karim lan moo waral maam Cheikh di fête dix ans de carrière bokk kook Anita Mbengue lan moo waral Anita di fête dix ans de carrière ne da koy bokk ak maam Cheikh. waaw bu ne tëj na ko parce que bu ma seet nii moo ko ñëw voilà donc kii moom mooy maam Cheikh ñaaw borom service al maxtum kii moom mooy Anita Mbengue dañoo yàgg liggéey ñoom ñaar te ci biir liggéey boobu noonu ñu gis ni am nañu benn point commun. mooy ñoom ñaar ñëpp dañoo am ambition ñoom ñaar ñëpp dañoo rëy bët ñoom ñaar ñëpp fépp fu ñu teg seen bët dañ fay àgg ils ont réalisé beaucoup de choses ensemble te lii ngeen gis nii lancement la li waral ñu invité des invités de marque ne leen may jël nuyoo bi may nuyoo di ko teg sa loxo nuyu ma waa salle bi yëpp di nuyu ñu nekk ci salle bi sama yaay yi macha allah ñoom ñëpp ñu ngi toog may jiital ci nuyu ma maam Maguette sama yaay yaayu Anita moo nekk nii. macha allah sama yaay nii mu ngi nii nekk di ñëw ak sama yaay sama góor sama jóg allah di nuyu ñi fi nekk ñëpp di leen rek di wax bu ñu kontaanee rek muy kontaanee dara ñooruñu lu dul suqali banlieue bi ñu nekk dara ñooruñu lu dul développé loolu moo tax bu ñuy sonn di góorgóorlu di rayal dégg lu nekk ñu gëm di la di nuyu suñu mag suñu jigéen ki nga xam ne moo fi nekkal tey président de la mu ngi nii toog man su ma amee bay ko ci taxaw bi tey yàlla moom la ma ngeen tàcc ma bu baax. di wax nag kàddu yi bu gàtt ndax suñu mag góor gi Njaay ñu ngi fi ak su bëri ñu ngi fi di xaar ñu ngi bi des na des na kon na ñëpp a xaar incha allah rabi kenn yaakaar ci kàddu yi nag ñu ngi nii tey moom naam mais mënuma ko kontaan naa trop yàlla na leen yàlla doo leen jël ndox waa Fass Maw ñoo ma doo leen ak Serigne Touba moo yéen ñu ma dégg kii bu bëri mais doo leen jël ndox tout le temps dama koy wax waa Fass Maw aw ma seen fay ndax ba mu sama yaay bàyyee bu ma fi seetaanoon dinaa place jaxaay mais seetaan ma benn yoon maa ngi leen di remercier bu baax a baax kontaan naa. wala sax nga wax benn wax da ngeen dëgër bopp wax dëgg moom dafa déranger ay xale la yaa ngi fu mais kilifa ay responsable la muy sonn ñu dëgg nii bari anta bala ngaa dem sa yaay dee Pape Thiam daa mu bëgg wax ci yow ba pare bala ngaa dem ndax loolu dund Pape Thiam loolu laa wax su ma ko waxoon woon du ma tëdd du ma nelaw parce que ay xale la mais kilifa la ku ne sonn dëgg fay xaalis bu bari ñu ko jóg waaw semaine yëpp dañuy si sax bi yëpp dañu fay bind yu bari bu fekkoon kenn doon si kii wax la moom man seex moo tax ma mbégte gi tey ñëpp bëgg nañ secteur bi tey taabul bi tey jii fees na dell lekk yi doy na naan yi doy na maam seex da ngaa woote ñëpp wuy si la maam seex tolluwaay bi ak boo wootee ñëpp wuy si la maam Cheikh tey bis bu mel ni tey jii lan lay def góor. waaw kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax si li nga xamante mooy lu ñu nit ñi wuy si macha allah suñu xol sedd na bu baax a baax parce que balaa dara damay sant yàlla bu baax di sant samay ñaari way jur ñoom ñi nga xamante ne ñoo may yar euh, xettal ma si liggéey ak góor góorlu ak jom ak fulla ak fayda su ma paree dooraa jublu ci sama jigéen bi nga xam te mooy Anita Anta bu ma sama xol dafa sedd si moom te xol bu sedd dafa doy ñaan Anta am na ñaanu way jur kon man su ma ko ñaanalee peut-être maa gën a ndaw si ñu koy ñaanal waaye sama ñaan li tax ma koy koy mooy que ne Anta soxorul Anta bonul Anta iñaanul Anta day xeex ndax man di xuloo ndax man ndax ànd ak man yombul de man maam Cheikh ànd ak man yombul xam naa sama jikko waaye moom mën na ma ndax défendre na ma fu nekk may sant jëkkëram monsieur Ndaw ndax ku ne xam ne ànd góor ak jigéen xooloo ci dara bu doon keneen la tey mu ne ànd góor ak wóorul mais dafa xam kuy maam Cheikh xam samay valeur loo tax man dara méttiwu si mbir mi may ñaanal yaayam ma maa màgget waaye su ma si jógee may sant sama yaay bu baax ndax moo may yar yiir ma tette ma ba tey ji ma am jom am fulla am fayda ba fu ma par force man la maam Cheikh li ma mos gëm ba ma nekkee xale ba tey dama koy wax chaque jour maa ngi ko anta ma ne ko lii day baax lii ma ne ko day réussir lii bu paasee succès bu ngand lañ ci am ndax xam la moo tax Fass Mbao bii ñun lu ñu def nii du ma ne ñu ñaar ñoo koy mujjee def de waaye defaat ko fi du yomb dogguma la foofu man téyër la damay ñaw kiñ ma tuddee téyër la day ñaw mu ngi nekk ba États-Unis te teewul maa ngi ci télévision maa ngi machine bi mais yow da ngaa nekk koo xam ne royukaay nga c'est la première fois ñu gisante waaye lu mel nii nag dafa doon loo xamante ni lu war a man a daw yaram la xale yi dem leen ngeen jàngiwaat métier génération bees bi bëgg ngeen am xaalis te yàkkamte ngeen seen avenir te adduna bi nu noonu dem leen ngeen jàngiwaat métier dama la doon dagg tuuti rek ci foofu la ngay tëjee balaa maa ñëw ki nga xamante ne nag moom daanaka kenn dootu ko lam laa mété ci mim réew li may tëjee damay jàkkaarloog presse bi jàkkaarloog àdduna jàkkaarloog Sénégal wax seen ñoom di leen wax maam bi biñ daan jooyloo wala nga koy wax pour discriminer ko boobu dee na dama jaay sama bakkan dama leen jaay sama bakkan cest à nekkuma ci dara lu naqari ñii tux yàmbaa ngi fi ñii naan sàngaraa ngi fi ñii sàcc ñi ngi fi tuxuma sàccuma naanuma liggéey rek laa gëm pour ni ma mel ku ci ciy bëgg nga bëgg ma ci ku ci bañ pareel ta nga xam ne ni ma mel noonu laa mel. mais mais mais yow mel noonu la ñëpp bëgg a mel parce que da ngaa du ma maçon du ma menuisier métallique du ma menuisier aluminium tailleur laa tout si qui est stylé chez moi lépp lu stylé man la maam Cheikh. moo tax ne ma leen di wax na leen biñ daan jooyloo di ko wax ay wax bu koy metti dee na loolu na ko ñëpp xam loolu mooy gëm sa bopp gëm dama gëm sama bopp. fat seen nopp ba ca déglu kenn faalewu ma leen. man sax laa koy daggee fa laa koy daggee. sama ci loolu maa ngi nii sant yàlla bu naka jàmm. sant bu baax tey jii ñu gis ne tey jii mbégte gi nga ñëw collaborer ak sa doomu ndey seen tolluwaay parce que nit di nga nekke ci benn affaire ngay dégg façon wax bu ne tey jii lan ngeen dégg ngeen jël ko fat seen nopp ngeen dégg lu ne ngeen jël fat seen nopp bisub tey jii nii. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di remercier ñëpp waa di wax aw ma seen fay jàpp nañ si bés bi. parce que ñun kese mënuñu mënuñu def lii daal mais nit ñi ñoo ñu dooleel ñu leen di remercier bu baax a baax. waaw. tey jii ñu gis ne tey jii sa doomu nday maam Cheikh mu nekk couture yow nga nekk ci wàllum salon te ngeen tegante ay loxo ba yàlla suñu borom dogal ne tey jii moom bu liggéeyee dara soxla la yow tam bu liggéeyee dara tam soxla ko ak lekk ak nit liggéeyandoo ak nit ni mu méttee yéen ñaa ngeen déggoo mbir mi lan la secret bi lan la. xam li ñu naan montre yu baax yi ñooy bokk heure. Olof Ndiaye ko waaw loolu yàlla dogal maam Cheikh man ak moom dañoo déggoo maam madame Ndaw da ngaa mer xam koo kooku noonu bëggul nga mer bëggul ngay ngay wax dara maam Cheikh li tax ma jàpp ko jour ba njëkkee gisantee daf maa kott akolaat ma ni ma Anita yow laa doon wër ma ne ko laa doon wër ndax mu nekk ci Fass Mbao di def rafet ma nekk ci Fass Mbao ma dégg turam mu dégg sama jour ba ñu gisantee dafa maa akolaat jur boobu laa jàpp maam Cheikh xam ne kii nitu kese la amul benn problème ba wax ak moom ba mer ba mu ba mu sant yow mer nga soxlaam jeex na fekk jiifalu la rek du ànd ak yow ko kon xam nga ne kon daf la bëgg te yàlla tax wallaay coiffeuse si Fass Mbao bëri na de bu ma taamuwee ah. ñu gis ni li ngay def moo lëmbe àdduna la yal na lay yàlla suñu borom la fal cap mais surprise bi la gars defal caabi oto bi. ay si kooku bu may wax si moom te ma pleurer fii daal loolu laay bañ. lenn naa la ko hmm. bu yóbboo guddi gi lu mu guddi guddi jaaree géej laal tuuti ndox ba daa ca. <laughs> monsieur Ndao moom kooku mun wax ci moom parce que dafa baax a baax a baax oyof tellement su ma egsi fii tamit grâce à parce que mënoon na ma fekk sama métier takk ma yàkkal ma ko te boobaa tamit doomu sëykat laa damay bàyyi métier bi sëy ba dee mais yàkkalu si dara moo ma jàppale moom ma dooleel sama yaay nag kenn du moom moom mi ma jàngal métier bi sama papa moom dafa maa bëgg ba yërëm anta del no anta del noppaleeku del lekk kuy liggéey da ngay lekk sama papa mënu wax ci moom sama yaay mënu ma wax ci moom mënu ma wax ci sama jëkkër ñetti ñooñu mënu ma wax ci ñoom. da ngaa am gën a mën waajur. wallaay en colomen dégg ngeen ko ku am ñaani waajur bu la neexee lembee si réew mi kon danga am ñaani waajur yal na la yàlla suñu borom lafal cat nga ca ngàlla tey lii mooy li fi jotoon am dese cappaandaw gi jeex na man nag li ma doon def yëpp def naa ko maam Cheikh yal na la yàlla suñu borom dafal jàmm. yal na la yàlla defal jàmm damaa bëgg nag benn affaire benn affaire rek bëgg ngir Sénégal Macky Sall damaa bëgg jëmm yu mel ni nga leen di recevoir parce que ñu ngi jàngal ndaw ñi métier ñu ngi teg seen bopp fi ñu war a yegg kon maam Cheikh dañ lay bàyyi man moom damay buus dama lay bàyyi ak micro bi nga tëj sa lancement ak li nga xamante ne nag comme ni nga ko waxee léegi rek lu waaye wax fa taw say nopp te xam ne yoon bi nga nekk mooy yoon dëgg bàyyi naa la lépp. ragaluma en tout maa ngi kontaan bu baax a baax a baax vraiment. ci jàkkaarloog ak site internet yow tamit ma lay remercier bu baax ndax ndaw nga mais yaa ngi gëm sa bopp di jàng sa métier ñaw mais aussi nga nekkaat ci métier bi mooy côté euh, teg internet ñu ngi la siy ñaanal yàlla nga jël maire bi incha allah rabbi di wax nag service Al Maktoum ragalut na ko ñëpp xaar te xam ne li ma wane li ma desal moo gën a ndaw di remercier sama jigéen Anita Makeup bu baax a baax a baax ah Codou dañ koy dalal daal Codou maa koy dalal. sama rak sama xarit mu nekk ku meilleur nekk ndaanaan. mën li muy def macha allah ni mu nekkee xale nii waaye li muy def dafa garaaw anta su fi nekkul kodd mooy mooy defar boroom xew yi ñuy wax kodd lan nga gis ak ban gëm-gëm nga am ba tey nga teg sa bopp fi nga teg kodd waaw salaamaaleykum Anita mooy patron bu meilleur patron bu gën si patron yi anta buggul ñu xiif buggul ñu mar bëggul ñu rafle macha allah Papa Thier bëgg ko ba ko takk si moom mu bëggaale ko Papa Thier suy wàcc lu ne la ñuy jëndal suñ demee suñu kër duñ sax reeraat lu ne la ñu Papa Thier di jëndal maa ngi koy ñaanal yàlla yan na dund ba Amina di ko teral yóbbu ko Màkka ci barki sëriñ Saliou balaa année bi di dellusi mu am sëñ Saliou ak sëñ Touba ci barki sëñ Saliou caat mi yàlla dafa def mu nekk xale bu baax bëgg maam Cheikh waaw ba tax na dama naan la gën a la góorgóorlu jàppale sa mag parce que fii lu ci bëri ki gën si yow rek moo la mën a jàppale moo la mën a dooleel gën a la jàppale sa mag ba ba mu beral la boppam ñaan na la parce que ñaan patron kenn du ko xeeb moo xam mu nekk sa yaay moo xam mu nekk sa mag bu ko musa xeeb bu ko jàppee ay mag si place bi jàppee ko comme sa patron yokkal sa doole fi nga ko teg nag fi la mais dama lay gën a ñaax. waaw incha allah. waaw dinaa gën si ah, ma. fee moom dañ koy sant di ko gërëm rek franchement ku nekk bëgg naa am bu mel ni moom ak yow mii. ndax lii dafa yow man tey dafa maa gën a yee dina tax ma gën a góorgóorlu gën a liggéey. yàlla baax incha sur Salam Vision.